xët mer mi yépp ginaaw ay jam góor la waaye mën na laa jéggalu ndax xam naa ni bu dee benn bi sax tooñ nañ la ko waaw man xam naa ni mer nga waaye dangaa war a mer bu la neexee mer ndax fii nag lu fi ñorkat bañ koy màcc yow la kenn mënu la ci jële maag binte ñoo jur waaye yaay bàjjen bàjjen ay bàyyi ah binte sax nee na ma waxtaan naak yow waaye gis naa ni ba léegi sa mer jeexul ma bëggoon li nga jàpp lépp nga bokk ci suuf te xam ni lii ñëw dàq sekk nag sa doom la sa goro la yóbbante na ma ci yow waaw di la jéggalu ma ne ko déedéet kilifa da ngay ñëwal sa bopp sukuraam jégalu bëggoon na maa yóbbante yow sax am ni dafa am lu may jox ma ne kon man doo ma yóbbante dara mu joxal ma ko deux cent mille yi cent mille waaw la ma woon da da ko jox ma ne ko doo am intermédiaire ñëwal nga joxal ko ko sa bopp deux cent mille yi mu ne sama sama kilifa la sama bàjjan sama goro la dama koy jég ma ne ko war na nga xam ne xew mi mënoo cee génn ndax yow lañu bàyyi laa bi yaay joxuñu ko kenn yow lañ ko jox ndax yaay jëkkëru bàjjanam man nag li ma bëgg yow yaa ma ci doy kenn doyu ma ci ku dul yow damaa bëgg nga wutali ma nag bu baax nag moo xam ne bu ma ñëwee li ma ci bëgg a def dinaa ko ci def dinaa la jox trois cent mille nga wutal ma nag bu baax nii daal laa bëgg bis bi daal damaa bëgg bu ma kenn jàmbat naan yàpp matul ak na lañ jëndi waat ndawal loolu daal moom bëgguma ko moom. waaw waaw waaw rafet na Binta rafet na waaye. Amar Diop laa koy jox Amar Baye doom Pa Moussa Diop bii. Hmm. Chéras la ne. fees rek la mën waaw bu ñëwee suba daal ci ngoon. Mhm. ñu indi ko mu fees ko waaw toog ko il faut nga koy superviser waaw koy superviser ko defar ko tong tong ko def ko ay nar yëpp lekk ndawal li doy waaw bëgguma kenn ñëw fii ci xew mii nan damaa xiif. wala ndawal dafay manqué. man daal loolu laay bay. loolu sama rab daal moom toog bu doyul. moom laa mënta supporter ci sama xol. waaw parce que wo ay nit bañu ñëw. lekk nu nanu ñu mëno fexe bañ ne xew mi neex na wax fa deug yàlla nak légui dal comme lolu mom dina possible. inshallah allah bu ma jógee léegi. wala téeméer té bi rek ba boobam. maanaam. ba comme bu ñé suba la nga koy indi. waaw do ma jox xaliss bu ma dem ci yoro sidi di jox ko. mu teel a dem fële ci kiba xol xool bu baax mu indi ko. waaw mu ni ma nak légui bu fekkee ne moom it kon na mer mënta bàyyi garaawul ma téye sama deux cent mille te bàyyi. <laughs> moo lu weer mer lu fi jar mer ah ah xoloo di ab sën rek. kenn ko nekk da ngay sëq rek di sa ah, gis nga ko loolu ah, loolu la. bu jeexee gannaaw ay jàmm de. waaw gannaaw ay de jàmm. ah waaw waaw. man kay xam nga deret rek ma kii te man xam nga sama yaay la ma waxoon rek ne ma contrôle kër gi. dee ko diagnostiqué. ah yaay kilifa gi ah règlement kër yi de ko teg ci temps. yaay kilifa gi loolu tax ma ma jël règlement bi téye ko en Eh? waaye du du ay affaire rôle te kii dama ko doon jéem a rek ay ay kii yëf ay gaynde lu rek. ah oh, loolu xam nga tamit yéen dañu leen bëgg xaalis. Ah. te bu ngeen bu ngeen defee noonu jàpp sàpp sekk def def fi lu xam ne jël abi di ko tëj ci néeg yeeg a génne loolu dama ko seetaan. moom nit ñi doon yàq amul abi abi abi <laughs> abi abi du koy doonne déet abi melul ni jigéen ñi de am fu mu koy doonne sax billaahi abi dina lakklu ay nit ay waay fu mu koy binta melul noonu de bégg ah. la yere doomam ji na amuy ah, ah la yere doomam mi gis ñoo may taxawaal déedéet bari naa histoire waaye du ma taxawaalu abi taxawaalul de da di nit du la fekk si nga koy toroxal waaye abi deful yooyu waaye nga gis nga sekk ko sekk neen kañ la indi deux cent mille ah moom kay ci yow la dépendre ah. foofu bu ma fi jógee daa bëgg ma jox ko résultat mu daal di ñëw loolu la wax résultat bi kay nee ko wàcc na dem yow doo xanaa ana amoo téléphone ana amoo kii machine yooyu bu ma jógee fii dinaa ko gis jarul loolu woo sekk ne ko ne ko bàjjen nee na c'est tout c'est ok normal <laughs> ñaan na lii lii dox la la kay mbir maa ngi nii <laughs> nee ko nag deux cent mille na ma sa jëndal kilo ndawal <laughs> ñu ngi ne xam naa ne nëbbutu na la. c'est que na ko de. ñaata la ko dàmp. Ah, hmm, na ko de. <laughs> ah pour la doxewul noonu de pour la danga koy teel a wax teel koo jox xaalis bi muy xool di dem ay gétti gétt moom day dem ay Touba Toul ay ma ay cene ba foofu lay jëlee ay jur. waaw léegi koy wax mu dem xool en attendant bu gisee nga nga ñëw ma jox la. Binta wax ju bëri ji laa mën de. li ma lay mooy bu dee xaalis bi mi ngi fi. mi ngi fi nan ko dem teel a jox yoru Sidibé mais mu lijjanti ko waaw mu jeex. man daal kontaan naa ci yow li ma la mën a xamal mooy làq nga sama ngërëm foo jublu yàlla na fa yiwu yàlla jublu ndaxte xam naa ni xew mii moom taq naa ci rip boole nga ma ci de. Mhm. saf naa ci sàpp mhm. te dinaa ci nuy ruguj nag te ci boobaa damay doon bàyyi ba pare dellu si doon leneen. ah xam nga man sama tànk daa oyof. waaw waaw waaye ah. mën nga ko ne ah. mën nga ko ne koy occuper rationnellement nag rationnellement. <laughs> indi cinq cent mille yi. jël koor dem jox euh, yoro sidi bi rek. Mhm. mu dëkkaan situation. comme faale la ci kër gi te demul xaalis la bu génnee bu génnee rek dinaa la woo ñëw ci biir nekk bi jox la. xam nga ay waxu faal sax man duma ko wax fii gaar. parce que Fall man waxuma ay waxam xam naa ne man nga gën a wóolu ko man moo tax nga ñëw ci man pension bii lu mu yor yëpp da koy doxaani jéem Fall ah, ana bi jéem koy koo <laughs> baax na ñu daal mi ngi loolu du changé boy fu mu yóbbu de cent ah, day doxaan nag kër naar yi la xewal de naar yenn yi kër naar yi ko bëggee bett toogal ci buntu kër ndaw sa tuddati ah xaw ma moom daal laxyaam daal la koy wax laxyaam. laxyaam laxyaam daal la koy woowee. dinaa lax seen ndey de. ah <laughs> yaa ngi bëgg a mer <laughs> yaa ngi bëgg a mer de. gis nga ñoom ñooñu. Eh. maa ngi lax seen ndey ba ñu ñibbi fee. ah gànnaar laa leen jëme ma ngay doxal de. gànnaar laa leen moom daal bu ñuy raay biir bi naan ma Zurich. Zurich. dañ ko liggéey ci Zurich nag ñoom Sow. nee na si Zurich bi si si eh, Zurich. Eh, boisson lay jël def ko ci soow mi. ak a xam yu bon. yooyu waaye gis nga ñaar fukki junni yi hmm. boo lijjanti moom indi ko ah njaw ndes na xam bi de sëy bi du am de. jeex na kon daal eh, sekk mu xaar ba ah, semaine bi di ñëw déglu wax bi ma la wax dama ne. Hmm. ñaar fukki junni yi yi yi ñu ngi jël. yóbbu ko ca kër naar ya boo ko lijjantiwul lijjanti deux cent mille bi sëy du am de. deux deux cent mille bi moom moom dina ñëw. sekk nga dem xaar ba semaine prochaine wala mu. ah man sama ah, yow yow yow yow foo déggee yow faal fan faal fan ngay fan ngay déggee yow man nee naa na woo ko nga dema du ma ko. woo damay da ngaa ñemee tubaab damaa dégg nga naan semaine semaine da ngaa ñemee tubaab. semaine yi lan ah? man ko fi tudd semaine dama fi tudd semaine. ma ne jour ah d' accord heure laa la wax heure. kon baax na jeex na bu may jóg fii di ko woo. ko da ko bàjjee nee na c'est tout. amul problème jeex na c'est normal. <laughs> doxal rek la fi nekk ci dëkk bi man xam nga man daal xam nga gaa jigéen sax kenn bañu ko mais foqale ci fo fal da cee foqale. du jëlal chaque jour que jëfee mi ngi kër Moussa Diop ma lay wax fa la dëkk noonu kër Moussa Diop boobu am na as ndaw su ma fay seet. du xaant rek moom daal femme boobu xaw ma duggoo liggéey je ne sais pas daal chaque jour ci ëtt ba lay toog teg ataayaam ñu daggal ko mango yeeg yooyu te kat mooy ataaya de kilifa ko toll ni moom. man kay keroog Fass mbubbam mi na mango. fa nekk fa lay toog noonu ndaw si toog nii xaw ma euh, euh, jaara la tudd kii kii ngay saaf beñe ba fële nday jaw màgget màgget màgget juufa nga nekk fee ca wet ga yeneen xale yi wër ko mu toog teg ataaya jeeg mango yi. man man dama waxul way waxul Fall man man Fall moom daal moom li sax du place nañu bàyyi ba yëf yi weesu ñu lijjanti ko. du ma ko jox dara taq loolu man maa la ko maa la ko déy ci suuf. Fall kay bërki bi tëdd nañ ba yàgg ci biiri nelaw mu naan beñe. beñe nday joow bala. beñe nday joow mooy beñe foofu ci kër ga foofu wuju mooy mooy wuju peccor ga euh, euh, màgge juuf waaw. moo ko ci wax dara dama koy bàyyi ci biir ba xew ba pare. ba xew du weesu xew mi laa bëgg kenn. ba xew du weesu jërëjëf. yow daal li jëndal xaalis bi rek. incha allah naa la ko jël soobee yàlla. tey dégg naa da ngeen xew. ah. moom nga toll. Ya? Hmm. ah bon. yaa xew bi mu leen koo teg ci suuf ngeen ba ngeen bàyyi xew bi sama ñoom papa paaka bi ñu leen génneel fii ci digg ëtt bi ndax lan fayub xaalis yaay nga ni mëkk mëkkaar ak moom mel ni ko yorul dara te fekk ne yor nga sa xarit bi ci jaxaw teggi na la ñetti cotisé nga yor ko may wax lépp nga bëgg sànni ci xew abi bi jox ma ci xaalis bi ma dem liggéey man sa doom la ma am ci lu ma jàpp waaye xaalis boobu ngay jël xewe la ko abi lenn boo yeggee di nga teral goro abi première njëkke deuxième njëkke ba troisième njëkke ñëpp nga bëgg leen a teral yaay bu ñu demee xamul nañ lay def dañuy lekk sa xaalis ñu noq abi ci biti lenn nag laa lay wax xaalis boobu ngay jox ak kii ban sens la am yi jigéen ñi Sénégal yéen a tardel ñëpp gor ñu yele len tardel ya do genn morning bi jox ana ñaar ko jooni yu la sek na nan jox day ko man vraiment yow jaaxal nga ma buy wax ak sa jëkkër do wax nank ni yow fuñ la fekk le rek fitna rek ngay waxe ah sa lu bon lay toj mu sa lu bon lay toj ban façon nit la ban façon nit nga mom nga xamul man ma xam man yow ban façon nit nga rek waaw la xamul han bi nga gis nga xam waaw ñaar fukk junni sek naanaan jox la ko nga ne ko di reex lek ñew di ma fatch ci dama ne ñaar fukk junni na genn ci ni mbala naa lii laa wax leneen waxuma ko question la la poser ça demande une réponse waaw mané bu gennul ndax da may da yow may tocc solo ban nga nan dëkk lay door ah dama lay dama lay ray nga nan lan dama lay ray yow mënuma kër gi man may dem di dik ah di di di yéeg ka a di jaay di jënd hmm? sama doxna ba sama teustunu dal yi jeex tak yow fu la këru ngoon gi fekk hmm? këru bëccëg ga fekk la fa ah nga jaxase temps bi ñun neen la soleil se lève à l'est mais yow la soleil se lève à l'ouest waaw da nga depp yow kat gi nga depp ndax lan luqu njuur bon yes ah nga ne lan nii fay naa ko courant. ban courant courant kan. xam ban courant. ban courant ak ban léegi ñaari facture moo am léegi mois bi léegi léegi léegi tous les deux mois deux factures lañu jox ci kër wala facture bi nga xam ne maa yëkkati facture bi Binta jox ma wàllam ma jox ma Binta jox ma dix mille ma jox ma ma jox ko dix benn mooy facture sax daa amatul ci kër gi lii mooy première. premier scandale monumental moy facture amatul ci kër gi woyofal sol courant ci biir compteur bi sol la dañuy jënd di sol amatul facture amatu bi waaw kon yow li ngay wax ay nari kessé la xaas bi fi ngi ko duggal mom la bëgg nga lé xana yow ñëmé wo li ngay def ñëmé ko kuuf bon tas gënu ngo la ma la dañuy nit rek lan la fi ñor bañ koy match sama sëyu doom bi nañ ci génne sa làmmiñ abi dinaa ko xewal abi du caga abi du sàcc kenn yuuxoogu ko yem na fi ma ko teg jaral na ma ko bu ma xewee ba pare sax nañ ma tëj waaw benn bu jigéen bi laam te mu suturaal ma lool xam may kan jox ma sama gëdd nag sonalu ma benn yoon te kat mooy jigéen mënoon maa sonal waaye affaire bi dafa juutu yow yaa tekkiwul dara tey ëllëg nga war a def attention nag ndax nungu sin miin nga ko commandant Cissé nee na ma benn moo boo ko fi waxee naa la ndiwaat mu dencal ma la te boo moytu dina ma la dencal ba xew mi pare nee na ma yow rek laa laay déglu te ñi fi ñëw miis nañ la xam nañ la xàmmee nañ la man damaa bëgg sax yow bi su xew ma nga ne ci kër gi ndax sab loxoo gaaw moomoo sa loxo xam nga la laa yëgal mbay sa yoon newul ci xew mi bala nga doon xam sa yoon newu ci ñu ne suba la xew mi nga dee ci guddi gi du tee su ma xëyee xew xanaa wax day dugg may ga bu génne xeeñ soble waaw kon te baax kon poobar nga ko mu saf daal maa la wax lii jërëjëf yaay booy dégg naa sa taxawaay sa liggéey rafet na li nga fi liggéey rek nga fi am waaye abi mii tu vas voir nañ dem ba ci kanam la ca kanam rawali bët cin jàllal fële yow wax ak yow sax tardement bu rëy la fële. Mbaye Kader. eh sister. toog waaye maa ngi nii rek. waaw noonu la. oui eh, mais Abi. waaw pardon. mais sister waxtaan bi keroog boobu ba léegi nii waxoo ma dara noo mujjee. yow wax nga dëgg. ah waaw lay déglu. Euh, problème mu mariage bi mm-hmm. sama xel moo ci génn fan yëpp toogu ma date bi la ñu maintenir. date bi ñu jàppoon. Mhm. puusuñu ko xam nga yegg seegul des na mhm. déjà dix jours. Mhm. moom la ñu maintenir waaye kontaan naa ci yow de. ndax wan nga ma ni nag sama frère de sang bi. kontaan naa torop ci yow. man daal comme jàpp ngeen jour man leen rek laal ci dolli beneen conseil donc laa lay jox gis nga famille bi teg leen ni tege man bu ma sañoon sax bul fi nekk di def mariage bu rëy. kenn di la xamal. def ko takk jàkka guddi ñu dugal la ci oto nga dem sëy leneen bi si topp mooy boo demee sëy mën na faa neex mën na faa metti mooy lan mën ngaa laaj lu sa jëkkër yorul mën ngaa soxla lu sa jëkkër yorul waaye bu boobaa nga xam ne jigéen nga yow jigéen ju mën góor nga Thiès nga dëkk yor sa at atelier di liggéey fii Thiès ku fi bëgg a ñaw yaa koy ñawal bu boobaa nga góorgóorlu sa bopp loo am nga defal ko sa bopp gis nga jigéen balaa moo mën a diñ mu góorgóorlu yalla dénk ko dara lu mu amul def ci bopam lu la fa bet nak sa borom keur jox la ko nga xamni yow ya ko mom dang ko lek dang ko nga koo ne dërëex. waaw lekk naa ko maa tey lekk naa ko. mag bu rusee danaan maa tey. da nga may dor yow may lay def lu gëna braw dor acca bisimilah. Eh, acca dorol sa jëkkeur dorol sa borom keur Ali Baba ko ma ngi ni la ilaha illallah dor ma. la ilaha yow lu raw dor la lay def lu raw dor la lay def xam nga dama daan wax chaque jour dama defar sa feet nga defe ne su ma un jour vien nga defe tabaski la. lu may de laa lu tabaski yow xam nga lu may def mooy maak yow da ngay kaj suñu diggante day yem yow di nga génn kër gi ci nii mbaa ci naa ndax yow loo sol ci kaw ba suuf mën a lii sax mën naa ko moom waaw yow yoo xoo dóori woo fay woo atte woo xeex comme nag dangaa ne ci kër gi di ma bëgg a doo ma yor doo yor sama doom doo liggéey doo def dara da ngay toog buñ la joxee dërëm yéene woo ma ko mbedd ma nga ko yéene demal ànd ak waa mbedd ba yow dal sa frère mo la ak man dal ba tax nga ñew ni di ma ëñ ëñee li nga def la wax. ko ma sa galak ñu jam la man sa borom kër la jox ma cër. cër jox ma cër respecté ma. ku respectable la ñu jox cër. waye tu es un beau rien euh, yow. Euh, ndey man ga duma nek fi di ben-ben lante gi yow ngay ki bat numu fi nedik li yow rek ya ko dese ci aduna ya mako ko mako yow ndax yow lo am joxe ko jigéen dox pawram ke sa sikim bu weex bi nga xamné wër di doxan dong moko taxa tax wa nak waaw taxul ko taxu du nee nga nak ah amoo nday amo bay amo nijaay amo tanta ben cheikh nga amoon mu ñi ngi warax nga ko mu dem. Hmm. waaw. yow nak ya ci des. man yow moomu lay sakar. bi. so ma sàqamee di nga dina di nga sar. may sar genn yow yow boo ma di nga sar bu soba yalla yow di nga xam wa man Sénégal ni lañuy bayyi gori Sénégal ah góor ñoo xam ne duñu xëy duñu gont duñu yuux ñu yaxas jigéen ñey daw ba dee ah te xa te góor ñi bu ñu amee as tuut duñ ko dem jox seen jabar yi dañuy génn taxawal doxaane ji ko waa jigéen ñi lan war def jël seen destin en main nag taxaw téye seen bopp xam ne nag seen kirim kirim vité ñoo ko war a seen bopp dox seen dox baleen ñu xañ leen caqat man day kumba ci loolu laay dox man point barre man loolu laa lay conseillé quoi gis nga damaa kontaan ci yow. ah mais looy dëgg. baar xoolal mënuma laa wax dara. dama ko teg rek ci cadre jaam sangam. Ah, xam ne nag ay frère de sang lañu. la yaa ngi may dégg waaye nag. li nga ma wax. Mhm. li nga ma waxoon loolu laa def. Mhm. te lii nga ma wax ci loolu laay dox. bu la dara naqari. Mhm. d'accord. waaye nag euh, dafa am lu ma bëggoon ñu waxtaan ci. mais damay bàyyi ba am temps ñun ñaar ñu toog. ndax am nga foo ma jëlee am nga foo ma yóbbu. waaye wuyu ma xool ma. mag yooyu wax. am naa lu ma war a mën a wax ak yow. Mhm. am naa lu ma war a mën a def ci yow. surtout te nga xam ne am nga sœur. non loolu moom xam naa ko moom. kontaan naa trop. maa gën a bég. waaw man daal sama problème du leen. waaw sama problème. waaw. Euh, bari dem damaa dem hôpital régional fekk fa Baba fay waaw Baba Ndiaye ah. ma demee fekk ma ay insomnie ak ay douleur de jambe affaire yooyu. li demee mu consulté ma defal ma ay analyse nee na ma dara jotul. mu la jot. sama la <laughs> non man magum jëmm laa. jabar femme ah aw ma femme bi. Kader de loolu boo ko dëggalee man maa koy dox maay joxe warugar maa koy takk maa la koy indil. wax dëgg yàlla xam naa ne dama lebal bor te dama lay fay. fay ma femme rek maay sa sœur. man bu ma fay dara. femme laa lay fay fay ma femme. yow femme laa lay fay ma femme <laughs> rek ma qualifié. dem ngeen tuwaay te ñoom xooli papa Dieng. Ah. Vayan, ahora ah, betul? Kijk, kijk. waaye yow abi yow yow ku loo xam ne la six heures maa bi nii nga war a def. six heures bàjjen gis naa la man. bi la. bii Ousmane ma ko jàpp Sandaga. Sandaga ah yow xam kan ah wàcc na lii kon nii baax na. nii waay yokkat. te kat kaay ma nii moytul lii ci sekk ak nii cat baaxul gis li fi jaar ah bàjjan cat nag moom ah. loo may ñaanal rek na doon cat moom robb ma ndax li fi jaaroon cat la de ah cat la cat kay ah. da ah ngi laa te dañoo nar a xew de yow ah. may yab daay daay ba sëy fu dara nekk loolu lay def waaw ma gis la xool sëyal ba génn baat ba naa la bu la dara naqari naaw daal di jëf ne <laughs> mën a kalaate non lii jàmm moom billaay ci la lépp xaj. aywa ji lii rek un heure la ñu commencé stressé woon. eh sama doon laaj te baali naa doon waay daadaan waay daadaan bàjjana ngi firi foor daadaan ku li fadiri ñun ay waay sekk daadaan waay nam naa la ayo maa la raw man ni ma teeroo tey sama xol seet na noo ki rey na ma sama yéey metti ayo mère bi noo stress dafa neex ayo waay waay ana man ba ba tey maa ngi lay xaar man aku ko wax dama koy def gisagoo see bënte bi. ah dama dafa koo gisagu ma damaa fi mu ne damaa bëgg dem jëndi xar nag. day jënd xar de. koy jënd xar. ah daral ba. te parce que jaa ngi ñëw. Eh, day jënd xar eh, eh, bul def loolu. ah tout sauf ça. ah Ya yaay sekk naa la. nga ne kon jeex na bu daral bay di xëccoo xar de. kon léegi 200000 pour la. dama la may rien que. kon jeex na man maay dem daral ba jënd ngandam kuy. nga jox la. dabi mar day dooru mar. ñu xam ne maa rey baayam. dabi mar day dooru mar. ñu xam ne maa rey baayam. dabi mar day dooru mar. ñu xam ne maa rey baayam. ay bàjjen sarax ñu nag mën nañoo dugg. waaye yow eh eh raté rek. bàjjen bi daa mën a fekk. raté rek damay faj. raté rek eh lii jar na ñetti xar. tagit. daa tey. ba pare da nga koy gis. amal jaamu yàlla. dem leen dem leen dem leen. donc kii rey na ma. loolu jar na ñetti xaar. bàjjanay baay bàjjanay baay bàjjanay baay. baay bàjjanay baay. doon dagg dundal dundal dundal rëbb a ba dëgg dëgg rëbb a dëgg sa gur bu xee.